asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokk yi déglu noo ngi ci kanam Serigne Bassirou Anta Niang xalifa borom Daaru Muxti muy Serigne Bassirou Anta Niang di xalifa Cheikh Ibrahima Faty Mbacké alxames ñaar fukk fan ak benn ci weeru janvier 2021 mu bëgg a kàddu kaddu gannaaw bi nga xamee ne toog na toogaayu borom Daaru Muxti wuutu magam yu baax yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa jullit yi Bassirou Mbacké maa ngi leen di nuyu di bëgg waxtaan ak yéen ñu waxtaan wi it weesuwul cant ndax ba fi sunu kilifa gi demee ba fi ne kenn noppaluwut ku ne yaa ngi kër kër yi di sonn guddi ak bëccëg te loolu lépp e, bëgg borom daal rek moo tax war na bu amee ba ba yegg si fii nag Euh, war nañ leen cee sant bu baax a baax a baax a baax di jiital ci cant gi di say mun taxa mi nga xam ne taxaw na ko taxaw bu rafet lool di feddali sunu taalibe ci moom bu baax a baax a baax ak waa daaru ñëpp di ko xamal ne noo ngi ciy ci loxoom noo ngi ñaanit mu yàlla yàggal ko fi te wéral ko te gën ko daaral bu baax a baax ba lim yéene ci Sëriñ Tuubaa lépp moo mën ko fan toll noo ngi ñaan loolu maa ngi nag yàlla def na wax dëgg yàlla boo gisee mu yéex bëggoon noo waxtaan ak njaboot gi yëpp rek loolu moo tax waxtaan nañ jàng ñi ñu war waxtaan ak ñëpp ay doomam naay ak mm, ay sëtam ñëpp waxtaan nañu ñoom ba loolu neex leen lool loolu nag moom ban euh, war nan leen ko jottalil liñ leen di jottalil it mooy xam ne baatub daaru moo te daal na ko sëñ Abdou joxe woon ab mm, Bachiru Abdou Khoudous mu yor ko ba jóge fi Baye Cheikh Khadi moom it ñu jox ko ko mu yor ko ba jóge fi sëñ Abbas yor ko mu ba jóge fi noonu rek moo fi dox ba tax na jox nañ ko ko xol bu sedd noo ngi ñaan yàlla dimbali ko nag ba mën a dem demin rafet te dara bañ koo gàllankoor te lépp loo xam ne lii yéene na ko fi e, ci lu rafet li nga xam ne mooy doxal dëkk bi yàlla may ko mu yomb ko lool taamee ko dam ko bëgge mm, ginnaaw loolu ginnaaw loolu ginnaaw loolu nag noo leen di xamal ne ah, mbir yi na mu doxe woon ndax xelam doy nanu xelam doy nanu te eh, lu ci liñ ci war a dolli dana ko dolli waaye nag eh, amut leen loo xam ne li luñ ci war sa xalaat la xanaa deeral ñi fi newoon rek ki fi newoon rek muy Serigne Cheikh Astou ci chef du village gi bi yoroon moom it moom ngi ci loxoom jox nañ ko ko nañ ci góorgóorlu bu baax ba lim ci bëgg lépp nu am ko ci waaw ndax mbir nag gàtt na lool sax waaye daanaka dafa jarul guddal boo tax ndax moom buñ tuddee sëñ Muntaxa rek tudd ñebootu borom daaru ay sëtam ak i doomam loolu dafay daal di doy sëkk waaye nit bu sonnee yow te xam ne daanaka lu mat eh, ñaar fukki fan a ngi nii ñuy kër kër yi bu loolu wéyee war nga leen woo sant leen te xamal leen ne si xolam suñu xol sedd na fas eh, nañ yéen it lu ñuy def ànd koog yéen ngeen yëg ko ñu yëg ko ba jubóo ji. kàddu yi la si sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdoul Khoudous Mbacke teg. alxames ñaar fukk fan ak benn ci weeru janvier 2021 kon ñu bokk déglu sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdoul Khoudous Mbacke porte parole. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngi nuyu bokk yépp mboolem ñi ñu bokkal borom Darou Mouhty di sant yàlla sunu borom si lii nga xam ne may na nu tal ak fekke. di yëkkati sunu kàddu ci ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi sëriñ Bassirou mi nga xam ne tey su tey moo di borom Darou Mouhty sëriñ Bassirou Anta di xalifatu Cheikh Ibrahim boroom Darou Mouhty yëkkati kàddoom jëmale ko ci sunu jëmm yu tuuti yile yu xeebu yile ñu fas yéene yëkkati kaddu yi sëriñ Moustapha sëriñ Abbas ak journaliste bi ngeen àndal. sëriñ Soxna bu Diop. kaddu yi nga xam ne dégtal ngeen ma ko mu bàyyi ko ci sëriñ bi li ma ci njëkk a tontu rek moo di samaan wa taatan ni nga xam ne ni la ko bëgge fas nañ ko yéene jafe noone noone mu ko limee tàmbalee ko ci sëriñ Abdou Khoudous moom ci boppam moom sëriñ Bachirou fas nañ yéene lu ñu defoon. ca sëriñ Abdul Xudoos ba agsi ci moom tey luñ ca mën a yokk dañ ko ca yokk te gëm nañ ne sunu borom dinañu ca dimbali ndax pas-pas ak yéene ji moom mi ngi fi te it leneen dolliku na ca mooy yéen ñi ànd ak njabootu biir kër gi am nañ yaakaar ju toll ne lépp luñ ci taxaw rek buñ ko àndee wëlbatiku xool ñi ni bokkul boroom daaru muuti nii mu ko defee ci kër yëpp kenn ku ci nekk la mu man ñu ànd ko yaakaar naa ne yàlla dina nu dimbali ba ngërëmam li ñuy wut danaan ko am te lépp dana feeñ ci njabootu borom daaru ak dëkku boroom daaru muxti bi di daaru muxti ci boppam di seeral ñëpp ne lii mu yëkkati ci ay kàddu jëme ci noonu parce que nañ ko yéenee jafe te ab tàmbali rek la ab tàmbali la ci nun waaye ab tàmbali la ci liggéey bi nga xam ne moom lañu war a liggéey ànd koog moom ndax su ma tuddee tudd sëriñ Cheikh Astou Faye loolu ab tàmbali la waaye liggéey yi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi nekk ci njaboot gi bu soobee yàlla lu ci war a dolli ko danañ ko yëkkati ci aw turam ba ñëpp dégg ko kenn ku ne fa nga war a féete ak la nga war a def ci ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal borom Daaru Muxti ak ñi nga xam ne ñooy seexi borom Daaru Muxti yi lépp lu fu waay war féete ak lu ci waay war a def incha allah buñ ko saytoo ba seet ko kenn ku ci nekk danañ la wax wala ñu yëgle ni nii la ñuy doxalee nii la ñuy doxalee moo xam bu dara xewee la moo xam bu dara xewut moo xam màggalug daaru moo xam du màggalug daaru lépp rek loo xam ne day tax sëriñ bi uh, gërëm nu Euh, sëriñ bi eh, la mu séntu woon ci noonu dara bañ caa manqué bu soobee yàlla loola moom képp ku war a mën a àndal def ko dinañ ànd ak yow def loole kon nag lii ab tàmbali la ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ bi yëkkati jëme ko ci borom daarul muxti ak ñu borom daarul muxti ak daarul muxti ci boppam ba tax na euh, buñ teyloo tuuti rek te déglu dinañ gis ne am na yeneeni taxawaay yoo xam ne Eh, bu soobee yàlla sëriñ bi dana ko yëkkati te su boobaa danaa leen ko jottali nañ ko war a jottalee ànd ko ñu ko war a àndal te su boobaa itam nañu xam ne kenn ku nekk nag ak la nga xam ne moom la yàlla dencal ndax li mu war a taxawee ci dëkk bi ak yeneen ak yeneen yëpp lu ci nekk ñu du ma ne tey lay doon du ma ne suba lay doon waaye fenn fu ci ne lam ca war a taxawee dana ko dana ko wane ba ñëpp dégg ko dana ko dana ko wax ba ñëpp dégg ko dana ko wane ba ñëpp gis loolu mooy li nga xam ne daal sëriñ bi waroon naa ko dolli ci kàddu sëriñ bi ginnaaw bi nga xamee ne ñoo ngi feddali sunuy sunuy ñaan ci Serigne Abbas bi nga xam ne moo ko jiitu ak ña ko jiitu woon te muy loo xam ne lii lii mu wax de euh, jàng jàng jàngale na lu bari ndax ñi nga xam ne gëmuñu yàlla sax bu amee mbokk loolu ñu tuddee cinéma sax duutuñu ca dem dinañ ko may ay ab diir boo xam ne duñ dem sax cinéma ñoo ñoo xam ne gëmuñu yàlla sax kon ñaar fukki fan ak benn yi nga xam ne wala ñaar fukki fan ak ñaar yi tey ci demuk sëñ sëñ gi mu door a yëkkati kàddoom te lii mu nuy wax ni ca bis ba ci boppam lañu ko waxoon waaye lépp nag dafa tegu ci xam-xam moo tax mu doxale ko noonu kon noo ngi ñaan sëriñ Abbas moom itam yàlla dolli ko ay xéewal te eh, boole kook mboolem ñi nga xam ne ñoom la nekkal ca barab boobee njabootam gi itam ma li leen ci seddali sëriñ bi ne ñoom itam sant naa leen ci ànd bi ñu àndoon ak ñoom ci liggéeyu sëriñ bi te xam ne liggéey bii ñu sumbaatee tam ñun ñëpp ko ñun ñëpp ko bokk ndax liggéey borom Daaru Muxti la moo xam kër sëriñ Abdou Khoudous la moo xam kër sëriñ Cheikh Khady la moo xam sëriñ Abbas la waaye dañuy mën a wax rek ne lépp luy njabootu borom daaru rek ci njiitu kër sëriñ Mamadou Awa Balla mi nga xam ne sëriñ Moustapha moo ko jëmmal dañu xam ne liggéey bi yëpp ci nekk kenn koo xam ne woo nañ la rek ci la la nga xam ne jàpp nañ ne mën nga ko na nga daal fëtt ko te dugg ci loolu te xam liggéey bi du liggéeyu kenn du liggéeyu ñaar du liggéeyu ñett liggéeyu ñëpp ndax bu ñu nee daaru moxti rek daaru moxti la bu ñu nee borom daaru borom daaru rek la te lépp loo xam ne dellu na ci borom daaru moxti wala mu dellu ci njabootu borom daaru moxti wala dëkku boppam bi jàpp naa ne loolu su boobaa su dee loo xam ne lu ñu lu ñu taaroo la wala lu ñu rafetoo la wala lu ñuy lu ñuy bégee la ku ñu tudd tudd borom daaru moxti ku nekk am nga am nga am nga cëb cër kon nag noo sant bu baax xam ne incha allah Euh, nii moom ab tàmbali la waaye dañ fas yéene waxtu wu nekk ñu communiquer di ko jottali ak euh, ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal euh, muy sëriñ Moustapha ndax yow sëriñ bi moo ne ci dégg nañ li mu wax ci yow te wax nañu ko ci biir kon nag jokkaloo gi moom incha allah tey sëriñ Moustapha say jox na la ci ndigal kon nañ xam ne liggéey bi rajo bi rek boolewu la ci sëriñ <laughs> Bay Njaay cëll rek boolewu la ci waaye dafa am leneen loo xam ne da caa te mooy nekk ci barab ña nga war a jëflanteel ña nga ña nga xam ne ñooy sa kilifa itam nga fexe ba am ci ñoom kóoluteef kóoluteef dafa am solo ma jeexale ko ci lii rek sëriñ Abdou Khoudoss dafa daan wax ne boo dikkee ko wax leen danaa la demal rek bul gestu la ca des moom mooy ki la ki moom noppalu yow mi ñu wóolu nag yaay sonn boobu nag fasuñu ko yéene daw te duñ ko bañ te duñ ci bañ dara fasuñ ko yéene sot sottal wut ci ngërëmul sëriñ Basiru mi nga xam ne tey si tey moonu ko teg suñuy wagg te ngërëmul sëriñ Tuubaa lañ ci wut ak borom daaru muxti ak ëllëg bu nu dajak suñu borom nu xam ne wa man yuhasim xurumatillahi fa huwa xayrun loo inda rabbihi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu